jigéen ñi liggéey ci centre de santé Serigne Mbacké Madina ñu gën koo xam ci jéemul ñu doon amal seen fête ginnaaw bi ñu jàppee ni weer wi seen weer la c'est le 8 mars nekk ñu anticipé ko waxtaane seen nekkin saafonte seen biir gën a jàppante ngir servir seen réew jàppale ñi jaaxle ñëw fa ngir liggéey ci loole dong mooy seen ëmm moo taxit bis bi de jëmal nañ ko daal ci lépp luy jëmale kanam centre de santé bi di jéemul tàmbalee ko nag ci suba si ak don de sang ngir maye deret ngir jàppale ko barabu fajukaay yeneen ñi nekk ci biir Touba ci ngoon si nag ci doon clôturer seen activité Bousso Ndaw moo wax ci kàddu jigéen ñi. major wax na ko di suñu major kon man xam naa damay ñëw ci remerciement yi nga xam ñi ngi koy def ci personnel bi nga xam ñoo ñoo ma bokk centre bi ndax initiative bi bi mu jógee ci maternité bi ci juróomi fan képp kuy jigéen nekk ci centre bi da ngaa jóg takku ànd ak ñun yëkkati sa poos def ci jënd sa hôtesse àndandoo ak ñun bis bi muy bis boo xam ne centre bi yëpp ñoo ko ànd ñuy remercier ñëpp nag bàyyiwuñu kenn. tàmbalee ko ci personnelu maternité bi ci kaw ba ci ki ci suuf di remercier it góor ñi nga xamante ni ñoo nekk ci centre de bi parce que ñoom ñëpp ànd nañ ko ak ñun taxawuñu fii taxaw suñu wet ànd kook ñun lépp lu ñu nekk ñu nekk ci foog naa ni bis bi jàmp na waaye amul faay réussir na ci côté yëpp lekk yi doy na naan yi doy na am na ambiance waxtaan nañ fi def nañ fi it don de sang ndax ku ne xam na ci koor lañ jëm te xëy na koor gi kenn du maye deret te deret fu ñu tolloo dañ koy soxla si hôpitaux yi kon occasion la ñu defaale don de sang tey ci suba fi la service bi yendu ñu àndandoo ko ñun ñëpp ñu ànd kook banque de sang wu hôpital Matlaboul ni comme ni ko major waxee ñu def ci jéego yu am solo ñu ciy sant ñëpp di gërëm ñëpp mboolem ka nga xam ne yaa ngi ci centre bi daal ak ci bitti centre bi yëpp ñi ameel nañ la cant ak gërëm di ñaan yàlla ñu fekke ko at yu baree baree bare te déwén dàq ren te kenn bañ a manqué incha allah di remercier presse bi di remercier euh, griot yi ñoom ñëpp bàyyiwuñ kenn. dellu si waat gën a nag jaajëfal seen médecin chef district bi nu jàpp ni dey taxawaayam rafet na loolu gunge na leen waaye tamit mën na njiit ci biir barab bi nu jàpp ni kat am na fi daal taxawaay bu mat sëkk. non mën naa ni amuñ ci revendication ci benn côté ndax xëy na MCD bi ñu yàlla booleel mun ak ñun ñooy xëyandoo di wàccandoo dara ump ko ci liggéey bi day teel a xëy guddee wàcc nekkul koo xam ne dañ koo def euh, médecin chef rek muy tëdd këram am na toog ay weer gisul personnel am wala xamul lan moo xew ci service am ànd kook équipe bu am euh, kii nuñ koy waxee Pastef macha allah bu dynamique. tey su xëyoon fii tey xam ne lii suñu soxla la balaa midi dinañ ñu résoudre problème boobu kon foog naa ne ñun amuñu loo xam ne fii ñu ngi ko fi revendiquer parce que moom ñun ñooy xëyandoo moom ñun ñooy wàccandoo te dara ump ko fi te lépp lu ñu def ñoo koy bokk. major bii di Bassirou Faye nag yëkkati na ay kàddu gën a nag jàppale ay jigéenam ñi magnifier engagement bi mu gis ci personnel bi ne nag weer wi seen weer la moo tax ñu ko doon jëmal jàpp ne nag personnel bi ci wàllu góor ñoom it jàppale nañu seen ay jigéen. tey jàpp bés bi Euh, weeru jigéen ñi niñ koy marqué niñ ko marqué mooy xëy def don de sang donc ñëpp xam nañ ni importance don de sang surtout koor gi ñuy dugg nii donc mu doonoon acte bu am solo boo xam ne ni àndoon nañ ci centre de transfusion sanguine bu Matlaboul Fawzeyni donc am nañ ci ay poche takku macha allah bi ñu paree nag ci ngoon gi ñu toog fii ci centre bi dajale njaboot ki yëpp jigéen ñi ñëpp def seen i déguisement yu macha allah donc doon santanteeg ngërëmante ak soññewaat pour ci liggéey bi. Mm-hmm. tey eh, bu ngeen leen di soññ a surtout ak taxawaay bi ñu war a am ci wàllum liggéey bi. waaw daanaka di leen daanaka soññ comme wax nañ ko so moo soññ ça veut dire que xam nañ seen bopp xam nañ li leen di xaar donc euh, li ñu doon gën a kii rek mooy gën a soññee gën a rafetlu d'abord li ñu def ba pare gën leen a euh, jaajuwaat ñu gën a jàppaat gën a. avancé jëm ci kanam parce que bés bi rëy na rëy goo xam ne rafet na rafet goo xam ne nii contentement lañ ci jëlee te tey suñu kilifa bëggoon na fi teew mais dafa am empêchement bu fi teewoon tey moom mooy defal moom moo ko moom moo fi taxaw waxal boppam parce que lépp lu mu bëgg muy docteur Ndeye Maguette mooy njaboot gi doon benn njaboot gi ànd doon benn te loolu toog nañ ay réunion ay réunion daf toujours ci lay wax ànd doon àndandoo doon benn àndandoo liggéey àndandoo jàppale ko loolu laa leen di waxaat léegi kenn ku ci nekk ci ñoom fa mu nekk moom moo fa war doon MCD bi ndax lam liggéey ba mu fay def moom liggéey bi kenn ku ci nekk sa liggéey moom mooy àndandoo doon def doon résultat tey bu ñu amee résultat du MCD moo am résultat mais ñun la d' abord ñun ñoo ñu gën a am résultat njëkk a am résultat ba pare donc di ko santaat moom ci euh, jàppale gi mu ñu jàppale ak ñaax gi mu ñuy ñaax donc euh, tey bu mot fi teewoon tamit. kàddu yooyu lay gën a feddaliwaat tey wax na ko ay yoon yoon comme ni ma ko waxee léegi rek donc dañ leen di gën a euh, remercier waat di leen gën a encourager ñu gën a persévérer ci yoon bi ñu nekk. centre de santé Serigne Mbacké Madina ñu gën koo xam si jéemul barabu fajukaay bi jàpp nañu ni exemple lañu si biir Touba si gëm-gëm bi ak conscience professionnelle bu nu am moo taxit patient yi taamu nañ ko loolu fii si Touba ak lu ko wër.